bon woote tey bi nag liñ ci jublu mooy di naqarlu eh, fi naqarlu yem ak di ko mettet li maanaam nattu yi nga xam ne ferme sédiment bi nekk suñu wetu cité mu ñu koy teg boo leen seetloo bi ngeen di dugg si ñi ñi dox si seen tànk ñëw wala ñu dox ci seen oto di ngeen seetlu ko ne tali bi mu ngi yàqu bu baax a baax te loolu lenn waralu ko lu dul euh, camion gros porteur yi nga xam ne sédiment mu ngi koy jaarale si si si suñu tali parce que dañu bàyyi seen bunt bi nga xam ne moo nekkoon seen bunt bu jàkkaarloog tali bi mooy yoonu Sangalkam bi dañ ko tëj ubbi suñu bu euh, cité benn bunt boo xam ne amul diisoo dañoo jékki-jékki rek gis bunt bi ubbeek depuis boobu ñu ngi jéem a négocier ak moom pour trouver des solutions à l'amiable mais on voit que dafa am benn manque manque de volonté manifest de leur part te léegi nag dañ ne jot na pour ñu jóg ci parce que fii dañ fi investir suñu xaalis des dizaines de millions gis ngeen kër yi macha allah ni ñu taaroo léegi nag du ñu seetaan kenn ñëw jóge fële pour ses intérêts économiques et financiers di yàq suñu cité donc cité bi tali mu ngi yàqu ba pare. odeur yi dafa metti parce que ganaar ku nekk xam na dafa am xet surtout période nawet nag période nawet pour nga dund ci cité bi nu mu la neexee dafay metti parce que odeur bi day envahir tout la cité waxuma la SN cité rek mais tout la zone waaw muy penku est ouest nord foo munti dem ngelaw li fu mu jublu da ngay daal di gis ne odeur bu metti moo ñu envoyé te odeur boobu dafa am njeexantal ci maanaam wér yaram doomu aadama ñi jàng médecine xam nañ ko c'est source d'allergie c'est source de maanaam mën na indi ay jafe-jafe ci wàllu wàllu nooy doomu aadama surtout ñi amee asthme ak allergie xale yi tamit bon am na benn médecin bu fi dëkk mosoon na intervenir ci groupe bi nee na benn mbir la odeur yooyu benn mbir mbir bu bon la parce que extrêmement maanaam euh, ganaar yi li ñuy génnee odeur bi dafa am ay ay azote genre xeetu daal yu ci nekk ci biir yoo xam ne mën na indil xale yi jafe-jafe ci seen wér-gu-yaram donc loolu moo tax ñu ne il faut ñu woote dénoncer ko ñun xam nañ ne borom ferme bi borom Sedima nit la koo xam ne c'est un modèle il a investir na ci réew mi mu ngi créer emploi c'est un modèle de réussite économique et sociale donc war na war na mën a moytu di lor ay doomu aadama surtout ay ay dëkkandoo yoo xam ne ay jullit lañ wala ay croyants comme moom te defe naa lii pour mu régler ko euh, du dara si moom donc ñu ngi koy lancer appel en tant que sénégalais en tant tant que notre euh, compatriote dëkkandoo mu jéem dem jéem ñu dimbali lu mën ci ferme bi parce que ferme baa ñuy lor euh, odeur yi ak weñ yi ak maanaam affaire ndox mi aussi day indi ay jaan ay ak yeneen xaat xeetu maanaam reptile yoo xam ne ñu ngi fi nekk cité bi te loolu lenn lu waralu ko lu dul lu dul ferme bi donc appel boobu la ñu amoon di di ko lancer di ko lancer autorités yi ak commencer par le gouverneur sous-préfet maanaam préfet sous-préfet le maire ak toutes les autorités compétentes le ministre de l'environnement la ministre de l'urbanisme vraiment ñu ñëw xool naka la ñuy euh, indee saafara ci lor yi nga xam ne ferme bi mu ngi ñu koy lor ca ca dëgg-dëgg. loolu la daal il faut ñu wuti ci saafara ba ci jëlee fi ferme bi xam naa loolu mooy solution bu gën sax ko parce que fi mu toll nii euh, sàmm ganaar ak dëkk ak ak ak cité àndul daal. àll bi yaatu na bon macha allah am na ferme yu bëri am na ferme yu bëri war war nañ mën a tey déco délocaliser maanaam euh, maanaam ferme bi indi fi leneen loo xam ne moo gën a méngoog dëkkandoo. ak fu doomu aadama di dëkk Soxna Anta Ngom bon am na ay ambition politique bëgg na defar réew mi mais je pense que booy defar réew mi lu mel nii danga nga ciy bàyyi xel maanaam bàyyi xel ci lor sa dëkkandoo fekkee yaa ngi lor sa dëkkandoo ba ñu yëglu te nga yëg ko danga ci war a joxe saafara loolu mooy tax mu mën a gëm que ne yow boo jotee Sénégal di nga ko mën a defar waaw ñu ngi lancé appel boobu c'est un cri du parce que dëkk ci biir euh, maanaam xet ak ay weñ ak ay yeneen loraange maanaam temps yi rek gis nañu indi fi ay njaga njaay ñuy jël ay ganaar yooyu yëpp c'est des polices waaw deux jours indi nañ fi ay njaga njaay muy comportement yoo xam ne yu désolant la yoo xam ne bëgg nañ vraiment loolu lépp mu yëg ko ñi moom a ñi moom Sedima ñu yëg ko indi ci saafara ni mu gën a gaawee en tout cas nous euh, les habitants la cité et les cités environnantes on a pris on a jël nañ décision de prendre en charge vraiment cette question ñu xeex ba lu ñu am jël daal parce que lu ëpp tuuru quand